mais monsieur Fall. sama gars yi maa ngi leen di ziar. monsieur Fall ak maa ngi leen di bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg. Yves. moom yaa bàyyi ni Yves. direction par exemple bu. nga dem bu ah. samedi. mais dégg naa amoon na visa. loolu laa dégg de man. dégg naa amuñu visa quoi. waaw loolu laa dégg de. Yves. waaw mais mais mais mais waaw. Sidi Diop a ngi nii. waaw. Ah. damay ah. damay dalal xel waa Paris. ndax Zénith bu ne jaar na fi. mais damay dalal seen xel ndax Zénith yëpp fekk nañu fa. Mm. mais Zénith bii. ci kàttanu yàlla. dina wute yeneen Zénith yi doon dem. Oh. parce que lu tax lu boox loolu. mooy ki fay dem. ki fay dem miin na mbooloo. miin na miin na li nga xamante ni mooy saal bu mag kon jeunes yi damay wax Sénégal yi fa nekk yëpp Paris Belgique Espagne Italie dañuy Yves ngi nii buur géwél a ngi nii Boucher ngi fi Fadam gis nga ñoom Barito gis nga grand ans ñun suba teel ñi ngi départ wuti Paris bu ñu egsee nag bëgg na gars yëpp génn alors alors une seule question une seule question Sidi yaa ngi yaa ngi waajal pour embarquer dem Paris pour représenter tout le Sénégal et toute l'Afrique alors ban sentiment nga yëg jamono ji bu fekkee say staff ñëw nañ sa famille ñëw nañ waaye aussi say fans ñëw nañ waaw mais kontaan rek kon ni ko suma grand frère buur waxee comme li olof Ndiaye di wax naan wure ba dem na kën instant yi dara desatu ci lu dul dem dem jëli ndam la incha parce que ni ko suma mag Pape Diouf waxee suma papa Youssou Ndour wax ko suma frère Waly wax ko mhm. li ma waroon def yëpp def naa ko dem naa ci suma ay këru nawle dem naa ci suma ay këru xarit dem naa ci suma ay këri frère donc li ci def dañuy jël lépp teg ko ci loxo. les gars s'il vous plaît nga ñëwaale waay waaw waaw c'est mieux ko borom defal. Ah, voilà vraiment. gars yi rendez-vous incha allah ce samedi. à ah, mu ngi ñëw. na ko waa Paris xaar allah ko waa mu ngi ñëw xeere na de mais ni ngay diggee Zénith. kii wow na de. mais mais mais pourquoi pas ma jël ci yow rek. Serigne Bamba. oh. laaj talaay. jàmm ci yow rek. large c'est bon nànk nànk rek. oh mais des boo ngi. ay ñaaral bu demee lépp lu fay ndam rek indil weer bi. incha allah wóolu nañ ko te yàlla mën na ko te na moo tax lépp ci xale mag la ñu wóolu ko suñu xel dana dana. incha allah. waaw d'accord bi valise bi gars yi ñu am valise bi. Seydi relantiral that's good.

naa ngi jël escalier yi naa ngi jël escalier yi waaw waaw nañ jël escalier yi bon nañ jël escalier yi xoolal mais enregistrement bi aussi dañ tëdd bu tëjee moom c'est foutu bu tëjee moom c'est foutu est-ce que lii nga xaj ñu ngi nii di yëg quoi mais timing bi moo gàtt léegi man man ak moom rek. nañu nañu nañu ak ñoom. de succombré. gars yi gars yi bu demee nii. est-ce que bu ñu tëjee dina tëju. ñu si xaj nañ dugg rek. day càng de sama gars yi. day càng de xala xala xala. day càng de day càng de. gars yi gënaat leen gënaat leen. yow est-ce que mënoon jël escalier wala petit petit. waaw jëlee escalier bi escalier bi yow. gars yi gars yi gënaat leen. kii yàlla nañ jël escalier yi ne la escalier yi gaaw na ko. si moom la moom la kii nii. ok sorry mais kër man la relevanti yi. léegi mais monsieur Fall. Eh, maa ngi lay bëggee Gallo <laughs> bëggee bëggee bëggee bëggee. c'est bon ayca ayca ayca. Ablaye génnal ak bagage. DJ Ivan Ngom. <laughs> ready to to Zenith ah. wuro wuro dem na kën. ah wax na dem na dañ taali. li gars yi doon xaar depuis six mois depuis novembre. Mhm. Zenith de Paris. ah ak bi def. yaa ngi noonu. mobilisation bi ñu xam ne mobilisation c'est une bonne chose. mu war a voyager da nga ko war a gunge lii mooy Sénégal staff bi ñëw nañu star bi ñëw nañu. duñ ko jël fële. waaw ah. dooy si tàggatoo ak yéen parce que image yi. bu xasee ba dugg fële ne mënatu leen. ayca dama dama ñëw leen ana fan samee ana ana Sidi Famille. waaw Sidi Famille dañuy sóoraale Fall. sóoraale ñu waaw. incha allah day neex day baax day neex day baax incha allah gaay gaay gaay gaay deux questions rek mu gaaw mu dem enregistrement mu def tàggatoo bi da ngay def nii waaw amin amin amin aja amin c'est bon aja aja boy boy rendez-vous le 29 juin jeex na rendez-vous le 29 juin ok c'est bon aja jaajëf bonne chance mec merci beaucoup aja dama jëli ko indiwaat rek aja jaajëf on est ensemble jaajëf bëggee ñoo far on est tout le Sénégal est derrière toi inshallah la fari bépp jënd bépp Afrique la àdduna la. mais may nañu ko mu enregistré. kontaan naa tamit ci presse sénégalais yëpp. waaw kontaan naa aw ma seen fay. day enregistré ba pare génnaat nga wax ak yéen. Rosam ba pare di jooy. Eh, sama jooy de. Fatima rek jooy. xale yaa ngi jooy Sidi Diop Zénith de Paris parma yow fi jooy c'est fort ndeysaan kay xool say rakk say rakk a ngi jooy ana barigo barigo ay nax booy booy ndam la soxla yi am ndam yi am ndam bu leen jooy yi am ndam de moo jooy yow dañuy am ndam léegi foo dem jooy mais barigo xale yi lan la ñu war a jooy mais dañoo dañuy namm seen papa dañoo dañoo xamul lii ci Diop. instant bi xam nga war a tëj baara mu ni war a namante xam nga barki alxuraanu karim man sax dama dëgër rek mais kon bu jooy <laughs> yow la ah, rafet na rafet na na jooy ki tubaab la macha allah macha allah ah, rek day nam rek da leen nam rek <laughs> pratiquement jooyu naturel la yow léegi laa ndax jooyu